l'actualité buzz de la semaine comme rek nuñ leen koy defalee chaque samedi day ànd ak mbégte ak warte képp noonu laa leen di nuyoo tey eh, mbir mi nag dama koy dóor rek eh, bébé bu ñu faatoon ca diwaanu Ñaaxar bokk rek eh, ca Fatick daal nay feeñal nag lu bees ab charlatan moo commandé rek Miya Ndiaye ngir mu faat bébé boobee ngir amal rek ab sacrifice humain bu ñu destiné rek jinne yi bu ñu sukkandikoo rek ci libération diffamation euh, charlatan boobee nag daal di nañu koy arrêté sax bu yàggul dara ci ab cité religieuse euh, bu célèbre lool ba noppi placé ko sous mandat de dépôt bu ñu sukkandikoo nag ci Mia Ndiaye mu jël bakkanu bébé boobee nee na sëriñ bi da ko waxoon rek mën na koo defandi milliardaire bu defee rek sacrifice bi rey boobule bébé ba jot sax euh, multiplier ay xaalis ci kanamam ngir rek daal di koy won pouvoir ba mu noppee moom mi yàlla xam xamle tamit ni bëggul woon sax exécuté bébé boobee waaye nag kii di charlatan ba da ko harcelé rek si téléphone ne ko bu deful bile sacrifice ñii di jinne yi rek daañu ko toppandi sonal ko giiru dundam moom Mia Ndiaye lu daw yaram la am jeudi bale ñu génn ca Saly lay addu ab belge bu dëkk Luxembourg moo doon dem rek euh, Saly weekend ànd ak soxnaam kenn ci ay xaritam ak i chauffeuram euh, waaye nag moom moomee mujj la yegg ndax daa ñàkk bakkanam rek ci yoon wa na ba mu crise cardiaque mu doon lu doy waar lool moom nag euh, mu ngi wuyoo rek ci turu ba Grand Jean ñu koy faral rek di woowee Gilbert moo nga doon dem rek ca Warang ngir reerandoo ak i ay xaritam. itam si yoon wa nag le piqué crise gan ñamu àndaloon sax ñu ngi doon rek jéem woote wëllu ña doon romb waaye ku nekk rek dafa banque loxoom ak feebaru coronavirus bi lëmbee àdduna bi ba ñu koy évacuer nag si benn structure de santé rek la dal di ñàkkee bakkanam sapeur pompier ya ñu woon nag ñoo ko yóbbu sax kooram boobee gannaaw constat bu si ay ndaw commissaire Daouda Mbodj ci amal si fàttali sax ay fan yu néew rek la rawanteeg euh, li bu fa bu bu ñu nemmeeku woon di nit ku piqué crise waaye nag kooku ñàkku si woon rek euh, bakkanam Grand Jean nag moo nekkoon sax propriétaire lieu boobee ñu dippee jardin du lac moom tamit rek voisin kii di njiit réew mi mag ki la woon foofee ca diwaanu Lac Rose yàlla na ko yàlla yërëm. Sidi Badji di élève ca lycée El Hadji Malick Sy bu Thiès moo ñàkk bakkanam ni ki dimb si ajuma ji si ba mu doon amal rek ab séance de gymnastique mu doonoon nag ab élève bu xarañ lool si lii di gymnastique Sidi da doon réviser moom képp rek si benn saalu gym bu nekkee rek ca établissement scolaire ba bu ñu sukkandikoo nag si témoin yi da doon jéem rek def ab salto arrière bu mu réussirul si circonstances yooyu rek nda amee ab chute fatale ba ñàkk si bakkanam si noonu la ñu ko yëgalee sax waa sapeur pompier yu intervenir daal di koy rek yóbbu ca service des urgences bu hôpital régional amado Amadou Sakhir Ndiéngéen bu Thiès waaye nag foofee sax lañ leen xamalee ni médecin ba ni rek euh, moom moomee daal dinay génn àdduna moom nag Sidi Badji mi ngi doon def classe bu première nekkoon. xam nag euh, doomu proviseur u lycée ba nga xam ni sax ab professeur éducation fisique ak sportive la woon ñu signalé leen sax ni moom moom moomee si di dafa rek euh, qualifié woon si ab concours de gymnastique foofee euh, ca commune bu Thiès si cadre ab tournoi de sport scolaire bu ñu prévoir woon sax nit ki tey si samedi bi foofee ca seen lycée ba yàlla na ko yàlla yërëm moom tamit si di baaji mu yeggalee ndawam rek ca aljana mbir yu Marème Diagne lay addu di soxna sañu faatoon ca quartier Medina Fall bu Thiès moom nag daal dinañ koy jébbal boromam mardi bële ñu génn si noonu ñu ne nemmeeku woon fa nag mbooloo bu tàkk lool nga xam ne bokkoon na si borom këru ba Marème mu jóge woon Espagne rek ñëw ngir assister li ni mel moom sax daal dina yëkkati ay kàddu ah, si soxnaam soosu naan rek Marème royukaay la woon nekkoon soxna su am respect laata muy xamle sax ni eh, porte na plainte moom it kii di Assane Gueye mi nga xam ne nii rek euh, nee na daf ko jëlal rek euh, lu am solo te cher lool si moom bu ñu sukkandikoo sax si information yi Assane Gueye mës naa tëdd kaso gannaaw ba ñu xam leen ni rek euh, dafa sàccoon ab ordinateur bu loolu weesoo enquêteurs yi daal dina ñuy gis tamit ab message 3 minutes 50 secondes bu Assane Gueye yónnee woon rek kii di boroom këru ba Mariam Diagne di ko siy réclamer 3 millions 40 mille si suñu koppar yu mu yónnee woon rek soxnaam. saucé par ay versement yu bëri lool euh, mu bokk nag si lu mu mujjee def moom Assane Gueye laata rek muy jël bakkanu kii di Marième Diagne ba tey ci mbirum Mariam Diagne bu ex copain am faat lay desandi bras boroom këram nag daal di nay xam li ni rek moom mooy gérer ay affaire Cheikh fay fii ci senegal te ba musiba bi amee ba tey rek bëggul moom Cheikh Faye mu addu si rek daf ko jàpp heure bu xalaatee bi li ni mel rek dafay jooy jooy yu métti sax bu dee nag Cheikh Faye ci boppam di borom këru Mariam Diagne la mu xam ne nag moo di bu nekkul woon waajuram bu jigéen bu nekk fii ci Sénégal moom moomee rek dootu fi tegati tànkam laata mi xamle sax ni dootul mës a jël soxna ab sénégalaise euh, si am ndaxte rek bile mbir daf ko traumatisé si noonu moom euh, muy yokk si ay kàddoom rek ne moom Cheikh Faye euh, bu delloo sax ca diwaanu Espagne dana dem gis rek ab psychologue ndaxte rek nee na mi ngi mbir mi doon na lu ko jàppaloon ndaxte sax nee na ba kii di Assane Gueye di faat soxnaam soosee mi ngi fekkoon rek muy wax ak moom téléphone nee sax dëgg na rek yuuxu soxna soxnaam soosee si téléphone bi ba mbir mi di am loolee sax moo des si boppam bi ba tey mu xamle ko moom borom këru Mariam Diagne di Cheikh Faye ba tey si mbiru Mariam Diagne bi ñu faat waaye bile yoon ak waajuram bu góor bu yëkkati ay kàddu rek ci mbir moom nag la mu xamle moo di Assane waxul dëgg ndaxte doomam du mbaraankat te askanu Thiès yëpp rawatina ña dëkkee ca quartier Medina Fall xol bu nakkari la ñu am rek si doomam noonee mu yokk si ay kàddoom sax ni Mariam kenn la woon si doom yi ni ku nangoo liggéey la nangu woon a jaamu yàlla eh, te moom sax waajur bu góoru Mariam entrepreneur la nee na boppam sax doyu ko loon si alalam kii di Mariam Diagne moo ko si rek gënoon a doy ba tax rekk muy naan Mariam féete woon na ko rek fu raw fu doom di féete waajuram lu ñeel nag version yaa ñu si wax yëpp nee na rek du si tontu ndaxte moom xam na doomam te Mariam jubadiwul bokkul si famille bu jubadi te tamit rek du mus jubadi si noonu dellu rek di leeral ni Mariam sax bu jógee ko woon rek si wetam daa fekk rekk mu dem jàngi laata muy ñaan rek ngir attekat yi def rek lépp lu war lépp lu yoon laaj rek si Assane Gueye moomee faat doomam joojee di Mariam Diagne yaayu Mariam tamit rek daal na si waxaale moom it rek dernier instant yu mu mujjee rek passé ak doomam jooju wàññeeku ba tey ci bile xibaar Assane Gueye bu jël nag bakkanu Mariam Diagne rëccuwul benn yoon li mu def gannaaw ba mu xamle ni rek Mariam Diagne da ko humilier mu faat ko yooyu lee kàddu nag Assane moo ngi yëkkatee rek euh, si ba muy janook ñii di enquêteur ya aywa ba tey ngeen di teewlu buzz de la semaine si Dakar buzz ñu wax rek si lu ñeer coronavirus bi gulleet rek ab doomu Sénégal di am bile feebar ab moodu moodu nag bu jógee ko ca diwaanu Italie wàcc si Touba ay atam toll si juróom fukk ak ñaar moo indaale rek bile feebar di coronavirus bi daal di koy wàll rek juróomi membre yu bokk si ay famille yam ñu yaakaar ne sax falay yam waaye rek démb rek la ñu xamle confirmé waat yeneen rek fukki cas ak benn yi nga xam ne nii rek am nañ bile feebar ca Touba eh, gannaaw rek ba institut Pasteur bu Dakar xam les résultats test yooyu eh, rek ne dafa positif eh, si noonu nag jamono ji Sénégal rek mu ngi lu ñu fi am feebaru coronavirus bi ñu ngi toll rek si fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama yal na si yàlla buur bi daal di def rek saafara ah, ba tey ci coronavirus bi ci nga xam ne lëmbe na àdduna bi dugg si suñu réew mi di Sénégal rawatina dëkk bu sell boobee di Touba si conférence de presse nag ba mu doon amal rek ci alxames ba la ñu génn Mamadou Ndiaye médecin chef bu district régional bu Diourbel daal dinay xamle rek ni émigré boobu jógee ko Italie wàcc ci Touba ba muy jógee ko AIBD rek di ñëw Touba allo taxi la jëloon te moom nag moom képp moo nekkoon ci oto ba ba mu yegsee nag këram la yem ci bésu ba 9 mars bi nag ci ay booru 18 la yëg rek ci yaramam fort de fièvre ba noppi di sakkat eh, si ëllëg sa nag la daal di dem eh, ca benn bërëbu fajukaay bu nekkee foofee eh, ca Touba ëllëg soo sa nag bu yemoon nag fukki fan si weeru mars génnul këram te dajewul ak kenn foofu ca Touba mu xamle ko moom docteur Dieng laata muy dem rek si centre de santé ba ba mu ñoppee nag la xamle ba tey moom docteur Dieng ni jaaxle na lool si émigré yu wàcc si Touba jaaree ko rek si yoonu suuf si surtout la Mauritanie te signalé wuñ rek benn yoon si euh, kaddu médecin bi ba tey ñoom ñoo ñee daal di constitué rek danger sanitaire euh, bu rëy lool si diwaanu Touba lu ñeen nag directeur COUS mi ngi xaarandi rek liste passager yu voyagé woon euh, ndoor rek ak moodu moodu boobee si Royal Air Maroc. Touba daal dinay indi ndimbalam si xeexu ba coronavirus bi porte parole xalifa général des Mourides daal dinay annoncé ndimbalu ba 200 millions si suñuy. koppar euh, gu ñuy jëbal rek gouvernement bi moom nag Serigne Bass nee na rek xalif bi dafa jël décision boobu rek ngir joxe exemple bu baax moom euh, nag mun taxa décidé na rek daal di joxe 200 millions euh, ndimbal ngir xeexu boobile feebar di coronavirus bi tey woo rek ki ku nekk ngir mu contribuer Serigne Bass Abdou Khadre moo ko xamle ci point de presse bi mu doon amal rek ci këram bu nekk fii ci Ndakaaru gannaaw ba mu doon rencontré jëwriñ campagne bu ñu dënk wàllum wér gu yaram bi Sénégal nag mu ngi enregistré jamono jii ni ñuy wax ki yéen fukki cas ak juróom-ñeent si bile feebar di coronavirus bi. ba tey rek ci coronavirus bi ak xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom nag daal dinay suspendre rek bépp ndaje ak daayira yi ba nouvel ordre xibaar bi nag ku yor kàddoom gi di rek Serigne Bassirou Mbacké moo ko xamle bile décision nag dara waralu ko lu dul rek multiplication kaawu coronavirus yu ñuy nemmeeku ci suñu réew mi rawatina rek ci dëkk bu sell boobee di Touba. aywa ba tey si coronavirus bi ak naka la ñu mën a def rek ba mucc si Macky sàll nag eh, di njiitu réew mi daal nay bañate jox rek eh, loxo eh, personnalité ya teewe woon rek inauguration complexe scolaire El bi bi njaay bu Dakar Plateau bu ñu sukkandikoo sax si laas njiitu réew mi Macky Sall daal dinay ñaan sax Sénégalais yëpp ngir rek ñu dakkal joxante loxo yi gannaaw rek ba mu xamle ni nañu dakkal joxante loxo yi nañuy sax euh, di jëfandikoo tànk yi euh, ngir rek euh, nuyoo par exemple tey moytandiku rekk tamit biis yi rawatina rek ndaje yu amul njariñ yi mu nekk nag conseil bu jógee ko ci njiitu réew mi Macky Sall laata rek muy xamle sax ni lu ñuy naan coronavirus bi mënula rek law ci tàngoor loolee dara amu ci gannaaw ba mu joxee sax ak ab exemple ci pays du Golfe yi nga xam ne nii rek. nee na ñoo gën a tàng Sénégal te teewut coronavirus bi ne mu xamle ko moom moo njiitu réew mi Macky Sall ci ba ñuy inauguré rek complexe scolaire El Hadji Bibi Ndiaye bu Dakar Plateau. ba tey ci Covid 19 bile ak rek chanteur euh, sénégalais bii di Baba Maal moom nag daal dinay xamle mercredi ni reporté na rek concert am bu mu waroon amal euh, fukki fan nag juróom-ñett si weeru avril buy ñëw ca Zénith bu Paris. Euh, ak à une date ultérieure bu ñu sukkandikoo nag si chargé de communication wam fomm bi dara waralu ko lu dul euh, pandémie bi lee di coronavirus bi nga xam ne nii rek daanaka wër na àdduna bi yëpp nga xam ni sax bokk na si France ak pays européen euh, bi mu se bu mu gëna a laal di Italie rek moom nag moo mi ngi waroon a produire foofee ca Paris fukki fan ak juróom-ñett si weeru avril buy ñëw si bu vingt jotee. six mille deux cent quatre vingt nag daal dinañ ko doon euh, jënd nii rek ba noppi si njëgub trente-neuf virgule cinquante euro lu moo ko trente-six ticket képp nag euh, moo desoon rek si lu ñu war a jaay si site boobee di Viagogo aywa du jëmale rek ci mbirum soxna Aida jàlloo moom nag soxna Aida dal day na déposé rek ab plainte ca division des investigations criminelles jëmale ko rek si ab cantakon ngir injure ak menace de mort bu ñu sukkandikoo nag si l' observateur bu fësal boobule xibaar li limier ya nekk ca dikk teewlu woon nañ rek bés yi la ñu génn kii di soxna Aida Diallo ku ñuy joxoñ nag baaraamu. am tuuma daa newoon rek daa yónnee woon kii di soxna Aïda Diallo si li mu wax ay vidéo ak i audio di ko suy yëkk lu mel ni xeme rek di koy tëkk ne dina jël bakkanam euh, waaye nag ba tey bu ñu sukkandikoo si journal boobee di l'observateur ba ñu ko auditionné ba noppi moom mu ñu joxoon baaraamu tuuma dañ ko bàyyi rek mu daal di ñibbiwaat euh, këram gannaaw rek euh, ba mu waaw weddiwee bi leen mbir ba mu set loolee ñu koy tuumal da ko weddi rek ba mu set si noonu la ñu ko bàyyiwaat rek mu dellu këram moom cantaakon boobee soxna ay Diallo dal di porter plainte ngir injure ak menace de mort. Abdou Aziz Fall Tilala lañu ñu désigné rek ngir mu poursuivre œuvre euh, waajuram bu góor bu ñàkk bakkanam ci ab accident euh, taawu ba Abdourahmane Fall Tilala boobee nag famille ba ci boppam ñoo ko désigné ci kon diwtu rek Chérif Moustapha Fall di nag rakk euh, ci sëriñ Abdourahmane Fall Tilala bu ñu sukkandikoo nag ci témoignage waajuram bu góor boobee la def na rek ci moom ay valeur ba noppi tax rek mu doon doon nit ku yaatu nit ku ay waajuram estimé lool te tamit rek def na ay at ba moom Abdou Aziz Fall eh, di gérer rek ay affaire oncle paternel am bi di Chérif Abdallah Fall Tilala eh, fii nii rek ci diwaanu Sénégal aywa ñu àddu jëmale ci leneen yaay faatu Diagne daal dinay def ay révélation taggoo euh, tàggoowam beeg euh, kii di Ahmed xalifa Niass la mu xamle nag moo di moom yaay faatu Diagne du tontuwanteeg kii di Ahmed euh, te xamle nag ne moom moomee du yëkk tey kàddu tamit di ko jëmale si kii di Ahmed Khalifa Niass ndaxte rek papam la léppam la donte sax yàlla jeexal na rek seen diggante ñoom ñaar lu ñeel nag appartement Ahmed bu nekk ca Maroc ko te ñu wax ne rek ne jamono ji kii di yaay Fatou Diagne moo ko moom Ahmed sax génnaatoon di naan loolu amul yaay faatu Diagne daal dina koy indi ay leeral nee na nag boobule appartement moo ko mës moom ndax kii di Ahmed Khalifa Niass moo ko ko mayoon te rek lii di loi bu Maroc xamuñu lii di maye nangu mu xam xamle ko moom yaay Fatou Diagne si micro kenn si suñu ay naataango. ñu dugg almadi addu rek ci mbirum bay di Amar di doomu euh, ndem si yàlla homme d'affaires bii di am Ameth Amar moom moom moomee nag dafa rëcc rek si ab tentative de kidnapping euh, bu ñu sukkandikoo si source yi loolee nag mi ngi xew rek euh, si guddib dimanche jàpp altine fekk rek mu nekkoon di reerandoo ak i ay xaritam si benn restaurant bu nekkee foofee ca diwaanu almadi nee na nag ba mu reeree ba noppi la dugg si toilette ya si ay simili yu néew rek waay dal di fekk euh, naan ko rek euh, waa jooju sax ay atam war naa toll si fanweer bu ñu sukkandikoo si moom naan ko rek ab agent de la section de recherche la laata mu koy naan rek ngir mu topp ko si noonu rek la ñuy wéccante ay kaddu si wéccante kaddu yooyu sax le vigile ya si boobu les restaurants daal di intervenir laata sax ñuy xam ni waa nekkul lu dul euh, section doon rek njuuj njaaj la daal moom waa ji si noonu nag la ñu ko yóbboo woon rek moom moo ca gendarmerie bu Ngor nga xam ne sax ñoo ngi ko fa téye ba jamono jii rek ñu leen di yëgal bi lee xibaar. aywa ba tey rek ci buzz de la semaine ñuy am mbégte lool di leen di dégtal xibaar yi dañuy àddu jëmale si mbirum Mamadou Diop ak naa nga xam ne rek lëmbe nañu réew mi si jamono ji PDG bu ISEG nag di Mamadou Diop nga xam ne sax jot naa fanaan ca prison ba ñu ngi koy toppee rek jamono ji détournement euh, et corruption de mineurs et pédophilie lu ñeel nag euh, viol suivi de grossesse bi toppee wuñ ko ko euh, ak gumo bu ñu sukkandikoo si Walf Quotidien ngir. inculpé ko nag dossier bi rek demul en audience de flagrant délit comme nuñ koy nemmeekoo euh, si yenn circonstances yi test ADN bi nag ngir déterminer baayu doomu joojee jëy na ëmb nag mooy principal cause ba boobulee test nag euh, képp moo mën a kii nii di Mamadou Diop bu ISEC euh, si jamono ji ak loi bu bees buy criminaliser nag viol beeg pédophilie bi dana tax rek ba moom boo moytuwulee moom moomee Mamadou Diop PDG bu ISEC dana risque rek lu tolloog fukki atub kaso. aywa ba tey rek si mbirum Mamadou Diop ak na waaye bi la yoon ak euh, Baba Tandian moom nag Mamadou Diop daal dinay bénéficier woo rek ab soutien bu rëy lool euh, bu jógee ko rek si monde sportif bi Babacar Tandian nak di ancien président de la fédération sénégalaise de football euh, day invité rek partie plaignante bi ngir ñu retire seen plainte boobee rek laata muy xam le ni li dal tey kii di Mamadou Diop accident la te mën naa dal rek ku nekk maanaam jombul kenn si noonee baaba Tandian di expliquer sax ne eh, ñenn si sportif yi réussir nañu rek eh, convaincre Diop ngir mu changer lii di avis ndaxte rek lu gën a am solo nekkul Diop dem foofee ca ba waaye rek mu accepter eh, doom joojee jëy na ëmb la tey wax tamit ancien candidat seen petit gallé bi moom Baba tanjan ngir rek mu delloo xelam si lépp lu baax loo xam ne nii rek kii di Mamadou Diop mës nañ la mës na leen ko defal ndaxte lekk lu baax moo war a primé jëf ju bon mu xam xamle ko moom Baba Tandian ba tey rek ci mbirum PDG bu ISEC ak jeune artiste bi di ba balde Moussa Diop nag ñu koy woowee per ay atam war a toll eh, si juróom-benn fukk nekk dëkkandoo Dieyna eh, ca quartier kilo Ouest bu Kolda janook rek ISEC ba foofee daldi di nay addu si bile mbir gannaaw ba mu xamee bu baax a baax Dieyna ak i ay famille am dëkk ak ñoom rek lu ëpp fukki at moom nag Moussa Diop nee na mësula gis Dieyna mu def lu dëppawul ak diine rawatina rek. Euh, société bi si noonu muy xamle ni euh, jay naa xale bu mu côtoyé la donc nag euh, du mën a cautionner rek lu ñenn ñuy wax lu ñenn ñi di wax si moom di koy qualifier de mœurs légères ndaxte rek jay naa si kanamam la màggee magam bu góor di xaritu doomam moom jay naa nag mu ko doon waxlee sax ni boo jàngee bu baax rek yaay nekk sama xarit mu ne jay naa xarañ la tamit si école ba amul rek. benn jafe-jafe ak waa koñom si noonee père di yokk rek si ay kàddoom ni bu desee rek lu dul wax nañu wax dëgg te bañ a wax rekk wax ju ñaw si deru nit ngir rek méttital ko ndaxte rek loolu yëpp amul solo avocat wu Dieyna maître Clédor Ly kontaanul benn yoon ci naataangoom bii di conseiller Diop ISEC gannaaw ba mu xamle ne rek révélé wul lu ñu waxtaanee ñoom ñaar ñoo ñëwee moom nag maître Clédor li nee na maître Alassane Cissé waxul rek ay proposition yu ñu defoon ci ñoom ñaar waaye nag maître Siré Siré nëbbul yooyu les propositions direct yi di du Diop reconnaître doom bu Dieyna ëmb ba noppi a jël Dieyna soxna ngir ñu bañ koo toppeete dara loolu nag. doon na ab arrangement yu ñuy nemmeeku rek si réew yu bëri si noonu nag maître Clédor Ly ne pare woon na sax ngir convaincre famille yooyu Dieyna Baldé eh, ngir rek ñu retirer seen plainte bi suma su Mamadou Diop reconnaître doom ji ba noppi rek nangoo jël kii di Dieyna eh, soxna waajur nag bu góoru Dieyna bu fa nekk loolu waroon na joxe avis am si bile mbir eh, te lu ko si sokke nag moom maître Clédor Ly nee na rek mooy lu avocat bi révélé wul rek proposition waxtaane woon nañ ko laata muy samp ab laaj sax moom Clédor di naan sax ba xam boobule proposition xamal nañu ko sax ndeyu mbill ga di Mamadou Diop PDG bu ISEC. ba tey rek ci mbirum naa ak lu ñuy naan rek dafa bëgg moom ak famille am Mamadou Diop reconnaître doom ji ba noppi rek jël ko soxna partie civile bi nag daal di nañuy weddi bile mbir ba mu set wecc fereeru Dieyna moo si euh, mi ñenn si suñu naataango yi donte sax nee nañu rek am amoon nañu tentative de règlement à l'amiable maître door li nag euh, nee na proposition d'apaisement bi euh, du lenn rek du dul Dieyna retrouver dignité am ak tamit. dignité euh, doom joojee nekk ci biiram waaye moom Dieyna intéressé wul euh, benn yoon euh, si noonee nag Clédor di dellu sax di xamle ni ba xam rek du ñu jox xale boobee rek yaay ak papa. ci xibaar boobee laay desandi ak yéen si confiscation téléphone Dieyna nag ak Diop lay dikk bu ñu sukkandikoo si libération enquêteurs ya nekkee ca division de lutte contre la cybercriminalité daal dina ñuy waxloo seen téléphone ya malheureusement nag PDG bu ISEC di dinay assuré ni dafa ñàkk téléphone boobee nga xam ne rek lam doon waxtaanee ak naa si WhatsApp lu bëri fal nekk ba noppi daal di leen koy assuré lu ñeel nag WhatsApp Dieyna lañu ñu gisee rek ab message boo xam ne nii rek firndeel na bu baax a baax euh, relation wu Dieyna ak kii di Mamadou Diop je t'aime duma la mës bàyyi bàyyi boobule message rek la naa bind yónnee ko kii di waa jur bu góor bu Abiba di Mamadou Diop mu muy naan rek moom moo jur doomam jooje mu ëmb. ci lee xibaar ba tey bu ñu sukkandikoo nag ci information yi Dieyna Baldé ak ñam wu àndal daal di nañ leen doon euh, bàyyi rek ñu ñibbiwaat seen ib kër euh, ba division spéciale de lutte contre la cybercriminalité amalee seen ib audition ya ba noppi euh, si noonee nag ñu jotoon tamit ay rumeur yu doon wax ni tamit dañoo libéré woon tamit kii di du Diop waaye loolu dara amu ca ndax rek moom moomee Mamadou Diop bu ISEC mi ngi woon rek ca commissariat. média bu plateau ba ñuy wax li ni mel gannaaw ba mu fa fanaane woon sax ci jamono jooju ñeenteelu guddeem Ah, ba tey rek si mbirum Mamadou Diop PDG bu ISEC ak Dieyna Baldé waaye bi yoon nag ak kii di Ngoné Ndour bañ demee rek ci bile histoire ba daal di siy laax beneen candidatu seen petit gàllé di bu ndaw commentaire yi rek ñu ngi bàyyeekoo fu ne si internet yi eh, di critiquer rek xale yu seen petit gàllé yooyee ba ko ñenn si suñu naataango yi woowee nag téléphone moom moomee di Ngoné Ndour laaj ko si bile affaire de mœurs la mu leen xamal rek eh, moo di. Eh, moom moomee rek eh, du wax ci biir mbir du accordel kenn interview eh, te sax bëggu see wax loolu képp rekk la ci xamle. Ah, ba tey rek ci bile information gannaaw bu ndaw beneen xar kanam rek la ñu révélé ci bile affaire si diggante ma du Diop ak Dieyna kookee nag du kenn ku dul Abiba Sy ñu gën koo xam rek si turub bi Star moom moomee nag la bu ndaw ex candidatu seen petit galet daal di rek mettre en rapport ak Dieyna Baldé ngir rek mën a piéger kii di Mamadou euh, directeur général bu e bu ndaw nag moo cité euh, Star boobee rek ca ba amal audition ba ba tey rek ci mbirum Mamadou Diop ak na waaye bile yoon ak nag rek la Dieyna Abibou Sy ak ex candidatu seen petit gallé boobee bu ndaw def rek ba piégé kii di Mamadou Diop Dieyna Baldé nag ak bu ndaw dañu bii bastar rek la ñu jëfandikoo ngir piégé Mamadou Diop bii bastar nag moo dal di envoyé Mamadou Diop message ne dafa bëgg ñu gisante daal di koy convaincre laata rek Mamadou Diop di koy laajandi ay photos yamu ko yónnee suñu nee rek la ko accordel ñu daal di gisee. def tour en véhicule mu daal di koy may vingt mille ci suñuy koppar moom Mamadou Diop laata mu koy dig rek ne dana ko seet ci sa ëllëg sa yemook rek fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ba ñu génn deux atum 2019 ba ci bés boobee nag la lépp xewee si lañ leen filmer rek moom bu ndaw ak eh, kii di Dieyna eh, filmer ko rek ak coquet di Biba Star eh, ca seen piège boobee rek ñu ko tendre kilifa bu Y'en euh, desul gannaaw benn yoon ci affaire Dieyna bile moom nag bés yu yële ñu génn la xam le ni rek depuis 6 heures du matin la nekkoon nag kii di Dieyna euh, mu daal di koy raconter histoire bi lépp rek euh, si noonee nag la waxee moom kilifa ne rek du bàyyee Dieyna kese bile histoire ndaxte rek dafa yàgg rek di défendre protection jigéen ñi te dina ci jàppale bu baax avocat wu boobee di maître Clédor Ly la taamu naan rek baax na depuis nag ba bile mbir amee rek ci diggante Mamadou Diop Iseg ak euh, Dieyna euh, di jeune euh, chanteuse dem sax ba ex candidate seen petit gallé boobee di bu ndaw daal di si bokk internet yaa ngi doon rek commenter lu ne di joxoñ baaraamu tuuma seen petit gallé naan rek mooy yàq xale yi journaliste ak chroniqueur bii di Assane Seck nag daal di nay rek addu si yooyu les critiques yu bëri ñuy jagleel rek ñii di organiser. fondateur yu seen petit gàlle naan rek lu jiig njaak ñoom ñu ñee ñooy njaak moom nag euh, euh, journaliste boobee si seen TV la xam leen ni rek bile émission yàqul rek benn xale ndaxte amul benn influence négative si ñi di xale yi bala may noppi ci biir mbir nag damay addu si xibaar bu bees bu si am euh, comme nu ko élément yu nekkee si enquête bi révélé dinañu amal rek ab test ADN ngir déterminer baayu doom joojee nekk ci biiru na euh, test boobee nag ñu war def euh, rek bu jëy na accouché ba noppi moo mën a euh, sauver rek kii di Diop ISEG su fekkente rek dafa négatif ñaari parti yëpp nag daal dina ñuy rek d'accord gannaaw ba ñu nangoo ngir ñu amal yooyu les tests ADN ba signé ko sax sur procès verbal division spéciale de cybercriminalité nag daal di rek acté seen souhait yooyee ba tey rek ngeen di teewlu buzz de la semaine fii si Dakar buzz ñu àddu jëmale rek euh, ci concours de générosité bu ñu nemmeeku ci diggante ex président sénégalais yi di Abdoulaye Wade ak njiitu réew mi mag euh, Macky Sall lay wadd nag euh, dafa may rek ñaari bus jigéen yu nekk ci parti wam bi ba noppi rekk daal may ab oto bu taaru lool benn géwélam boobee des ak moom di Amadou Niang ñu koy wax madoo ki ba mu ca noppee nag la njiit njiitu réew mi mag Sall rek daal di may tamit ab 8 wit bu taaru lool kii di Baaba Maal xamuñu nag ba xam ndax Baaba Maal moo ko ñaan boobule oto ndaxte rek bu yàggul dara la oto ma daal di takkee jëppeet ca autoroute à péage bi moom moomee di Baaba Maal. leneen Khadika di animatrice jamono ji ca 2STV daal dinay dégg alxayri alxames bale ñu génn rek yemoo ko fukki fan ak ñaar si weeru mars atum 2020 bi ñu nekk moom nag ñu ngi ko doon takkee ca Koutal nekkee ca Kaolack euh, di village natalam moom nag ab footballeur malien rek buy évoluer si poste million offensif ca FC Metz di wuyoo rek si turub Adama Traoré nos moo ko jël soxna moom nag Adama Traoré sax moo nekkoon rek. joueur euh, mondial bu gën a xarañ ca atub 2015 ci lu ñeel U20. su ma noppee a ci xadika damay àddu si xibaar bu neex bu tàbbi si Alphie doon def rubrique cuisine ca émission boobee di yeewu leen di daw doon di daw ca télévision Futurs Médias laata rek muy dem fekk ji boroom këram ca diwaanu Espagne ànd ak taawam bu góor bile moom nag Alphie ba ak borom këram bii di Ricardo daal di nañuy am seen ñaareelu doom gannaaw rek ba Alphie accouché doom bu jigéen yàlla na dund te barke leneen Ouzin Keita kontaanul rek si artistes yi la koy firndeel nag bokk na si rek kàddu ya mu yëkkati si ba muy def ak entretien kenn rek si suñu natango yi moom nag Ouzin nee na rek daal ñàkk waajuram bu jigéen gannaaw ba mu génnee àdduna waaye nag lu ko si gën a nàkkari rek mooy kenn si artistes yi yëkkatiwul tànkam rek ñëw jaal ko waajuram bu jigéen boobee te ku nekk rek xamoon na naka la mel waajuram bu jigéen moom Ouzin Keita si noonee nag ñu si jaaree ñun personnelu Dakar Buzz yëpp di koy ñaanal rek moom waajuram bu jigéen ba fa mu nekk gënal ko fa mu jógee te yàlla may ko xolub muñ moom mu mee di Ouzin Keita aywa ñu àddu rek si nag caractère bu dal ci musique sénégalaise bi Iba Ndiaye nag di doomu Doudou Ndiaye Rose moo wàññeeku ba siile rek ñu génn ma moo mee sax moo wut woon waajuram bu góor gogozu dessin bi nag xamuñu ko waaye nag ñoo koy jaal askanu Sénégal yëpp rawatina rek ñu yëngu si aar bi te koy ñaanal moom moomee iba fa mu nekk rek gënal ko fa mu jóge ko ñu xuusandi si tàggat yaram mbirum footballeur bii di Babacar Sarr laa koy doore moom nag nga xam ne rek euh, dañu koy recherché ngir affaire viol ca Norvège euh, ba noppi suula le coup d'un mandat d'arrêt daal dinay àddu rek si luñ koy tuumal si l'observateur nag le footballeur sénégalais bi nga xam ne ni rek mi nga woon jamono jooje ca Arabie xam xamle innocence am si boobule mbir laataa mi leeral rek xale bu jigéen boobee sax di koy tuumal dañu doon bëggante ñoom ñaar si firange moo ko lal ndaw si da ko bëgg rek complot ba noppi yàq ko eh, si rek appiwu presse norvégienne bi moo xam xamle ko eh, ci l'observateur moom footballeur sénégalais bi di Babacar Sarr enema combat si diggante rëg-rëg ak Ivan Romanov bu ñu prévoiroon rek ñetti fan eh, si weeru avril daal dinañ koy rek reporté ba fanweeri fan si weeru octobre atum Ares Fighting Championship nag moo ko annoncé lu waral nag ñu reporté date ba du lenn lu dul coronavirus bu lëmbee àdduna bi ci jamono ji. mbirum Sitor Ndour lay addu moom nag di arbitre dañu ko ràjji rek avis ba loolu nag weesoo la yëkkati ay kàddu si Dakar Buzz moom nag Sitor xam ne ne sax lu bari si Alioune Sarr mu jiite CNG laata sax muy xam le ni eh, lu tolloo ko juróomi arbitre 52 500 si suñuy koppar képp la ñuy jot boobule vidéo nag mën ngeen ko suivre si Dakar Buzz ngir gën see am ay leeral waaye tamit ngir gën a xam rek révélation yu Sitor def eh, si njiitu CNG boobee di Alioune Alioune Sarr ba tey rek ci mbirum Alioune Sarr nga xam ne rek daal dinay jur polémique si bés yi gannaaw rek ba ku nekk di yëyee di bi si gestion dictatoriale bi nga xam ne nii rek daal dinay duré ñaar fukki at ak juróom lu koy firndeel nag depuis rek ba mu tegee ay sanction yu disloo si arbitre yi di Sitor Ndour mi ñu rajee avis Malick Ngom ak kii di Babacar Diop juróomi at ak tamit Aboubacry Dramé ñaari at ay mbër amateur ak i ay communicateur traditionnel dañoo bëgg rek mu dem moom Alioune Sarr jóge ko rek ci bopp CNG ba mu jiite ancien Tigre de Fass bi nag di Moustapha Guèye daal dina si addu moom nag la mu xamle moo di rek dictature la le fait que rek euh, ñuy suspendre ay arbitre si bile façon bu dee sanctionné financièrement la suspendre ba noppi rek menacé daa yaakaar rek moom Moustapha Guèye nii loolee rek du gestion bu baax ñu bëri nag quitté nañu Aziz Ndiaye Gaston Mbengue Yekini ak moom moom mi Moustapha Guèye ñoom ñëpp rek ñu daal di quitté te loolu day firndeel rek ne eh, ku décidé intégré CNG euh, doo doo mës a rek opposé euh, si seen décision yooyee du samay kàddu Moustapha Guèye moo ko xamle ca télévision Futurs Médias ba tey rek si mbirum njiitu CNG bi di Alioune Sarr waaye bi la yoon ak Bécaye mbay mi nga xam ne moom it dafa bëgg rek ngir mu dem bàyyee place bi ñeneen ñi moom nag Bécaye sa télévision Futurs Médias tamit la xamle ni rek bu Alioune Sarr bëggee nekk ba tey njiitu CNG bëgg-bëggam la moom si boppam euh, te nag euh, vote bi dina déterminer lépp te moom Bécaye daa yaakaar ni rekk ñaar fukki at ak juróomu service doy na sëkk ak barke dafa war a bàyyee classe bi rek ñeneen ñi ndaxte tamit ñu bëri rek mën nañoo diriger bi nga xam ne nii sax mënula régler problème làmb gannaaw rek ba mu amee crise bu yàgg te CNG mënu si mënu ko rek euh, résoudre donc su Alioune sar waxee ni rek bëggul quitter moom moom moomee di Bécaye daa yaakaar ni rek waru ko wax même su dee dafa bëgg sax euh, CNG ndaxte ñëpp xam nañ dafa bëgg lii di làmb waaye waxtu wi dafa jot rek ngir mu quitter boobule des donte sax day desandi di nekk une bonne personne waaye ñeneen ñu aussi rek mën nañu diriger mu xamle ko moom moomee Bécaye Mbaye boobulee xibaar sax laa koy ndar keppee di leen jaajëfal yéen ñu ñu doon teewlu di jaajëfal Seydou Si mu faree woon ci caméra bi euh, passé leen week-end jàmm ak salaam jërë ngeen jëf